jër ngeen jëf euh, mbokk yi ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci seen seen académie minan mu mel ne tey ci àllarba yi ñoo ngi xëy tey fii ci pencum daarul Minane fii ñu taxaw nag mooy dalu waa kër am di Khady Fall gis ngeen ko mbooloo mi mu mel ni waa kër Serigne Amdi Khady Fall kon 4 heures fii incha allah fi lañ war a dale waaye ña ngay waajale fa foofee nag ci kër Serigne Amdi Khady gu màgga ngir jëm si tey fii ngir war fee dal ngir waajal sikaru Sam Fall bi nga xam ne moom la ñu war a amal ci biir kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen rek ñu dugg ci biir xool nan la waa dal bi toogee incha allahu rabbi la la فلا jëf mbokk yi kon ñoo ngi fii ci kër Serigne Omar Diop eh, fekk fi Serigne Mamadou Ndiaye jéng xam naa dañ koy dégg kàddu gi rek mu leeralal ñu kër gi maanaam ak eh, mboolem kër maam Cheikh Ibrahima yi nga xamante ni tey ñoo fi war a dalse te njaboot gi nekk fi incha allahu rabbi Serigne Mamadou Ndiaye. bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fii nag nga xam ni moom ngeen ñu fekk mooy ci pencum daaru minam di kër sëñ Omar Diop di kër sëriñ Assane Diop euh, fekk fi buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi jox ndigal ñu nekk ci biir liggéey bii bi nu yegsee it kër sëñ Omar Euh, fekk nañ fi seex Mouhamadou Abdoulahi Diop mhm. mi nga xam ne moom la suñu borom dogal mu yor liggéey bi yor kër gi mhm. di jëwriñ ji ñu ànd koog moom ñu làngoog sëñ Ilimaan mi mhm. euh, euh, njabootu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi nga xamante ni ñoo fi fare ci biir liggéey bi mooy sëñ Ablaye Fall Ndar xalifaam bu tedd bi Cheikh Mortala Fall ànd ko ak ñun njabootam gi nekk nii waaye kër Sëriñ Asan yi nga xamante ni li sëriñ bi waxoon mooy nan yaatal liggéey bi te fexe lépp di tawféex ba li nga xamante ni moom la yittewoo mooy la sëriñ Tuubaa baaxoo woon di def di jàngale ab njàngale ci maam Cheikh Ibrahima Fall ni kenn la ci bi suñu borom yi nga xamante ni suñu borom booleel na ko ko jëfi cheikh mouhamadul muntaxaa yi dafa indiwaat joxoñu cheikh naa ahmadul xaddim yi nga xam ni daana rëdd aw rëdd daal di wax ni ku ko jéggi dem safara maam cheikh ibrahima fall ñëw weesu loolu wuti ko nga xamante ni dafa àndoon ak moom li wajillaahi taala al karim nga xam ni xoolu ca lenn jëf ji it nga xam ni sëriñ bi indi na ko fàttali ne ne jëf cheikh mamadou fadal ji nga xam ni dafa waxoon ni jumaay tuubaa de lii nga xamante ni liggéey bi ci kenn képp la tur yayoo muy Lamp Fall Babul Mouridine Serigne Fall lu tudde ko sooroor bi loolee nag di Serigne Mountakha feeñal daal di waxaat ni sant gi muy sant yàlla mhm. ci Cheikhuna Ahmadul Xadim Xaadimal Moustapha mhm. sant googu mhm. kenn képp la koy jagleel muy tudd yàlla muy zikrullahi waaye nag ci xaasu maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko ci doy ngir mu mën a am ngërëmul suñu borom ci loolu ndax xam na ni maam Cheikh Ibrahima Fall am na xaas ci turu yàlla kon nag bërëb bi mi ngi nii njaboot gi mi ngi nii liggéey bi mi ngi nii liñ ci jublu rek mooy sëriñ bi am ko ni mu ko bëggee. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi yegg seeguñ Baye Fall yi nga xam ne di mm-hmm. ñoo war a féete ci kër gi mm-hmm. ñenn ñi nga xam ne tey waa kër Sëriñ Amdi Xadi ña nga foofee ca Paaleen mm-hmm. ngir waaj ngir war a yegg sëriñ bi dafa wax ni maam Cheikh day jëf dañ koy tàmbalee ci jëf ja moo waral ñu tàmbalee ko ci liggéey ba ndax foofa dey nga xam ne fa la ñu nekk mooy complexe Cheikhuna Ahmadul Khadim sëriñ bi moo ko dencoon ca waaye ñu di ko tudde stade ba waaye sëriñ bi ci coobareem la ko fa dence woon moo waral tey jii ñu nekk ci liggéey ba xëy ci liggéey ba gent ci gont ci ngërëmal sëriñ bi muy tur yàlla wi moo tax sang yi nekk ci biir liggéey ba ànd kook ñun di yegg si ji walis jëm si fii waaye njaboot gi nag bi nu xoolee nii togg ay berne joxe ko mhm. dafa bokk ci liggéeyal sëriñ bi te sëriñ Muntaxa joxe ci ndigal mhm. ñu ànd koog moom ni mu ko bëggee kon noonu la sëriñ bi joxe ndigal kon ñu jox Cheikh Mamadou Abdoulahi moom mu am ay tënk yoo xamante ni mhm. dana ko jekku tënk ko ci biir liggéey bi nga xam ne moom lañ fekk si mu daloo gan ñi waaye nag ñu fàttali ci le sëriñ bi waxoon sëñ Omar Diop ak maam Cheikh Ibrahima Fall day jenn jëmm sëriñ Tuubaa boole woon leen tey jii suñu borom dimbalinu ci wooteb sëriñ bi njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw daje fi ànd koog njabootuk Cheikh Omar Diop mu doon kadduk sëriñ bi démb moom la sëriñ bi di weele jërë ngeen jëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu xanaa dañuy sof suñuy kaddu ci kaddu sëñ Mouriñ Jeng mi nga xam di mooy jëwiñ sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ Talla Fall di xalifa seen maam sëñ Ablaye Fall gannaaw loolu ñun suñu ak cant dong lañ ci amee. ginnaaw bi nga xam te ñun suñuy maam ak suñuy waaju dañoo amoon ndigalu sañc penc mi. ci ndigalu suñ basiiru muy suñ maam suñ asan mi nga xam te bii ne moom mooy taw suñ Omar. moomoon ndigal ñëw sanc pencum daaw lool nag tey jii moom la kan ñuy fedd libaat alhamdulilah biñ ko àndeek njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall lal yi ak néeg yeeg yëpp dañ ko gën joxe jëfe ndigal dara ko baa kër maam Seex loolu mooy mbégte mi kon nag ñoo ngi nii sant bu baax a baax di sant di ñaan yàlla sax mun Muntaxa yàgg fi ak njaboot Seex ma Géem sëñ maa Jóob mi nga xam moo fi nekk sëñ Omar tamit luñ fi liggéeyal sëñ Omar moom lañ ko jëfee ak sëñ Xalifa Jóob xalifa sëñ Asan Jóob jërë ngeen jëf njabootu maam Njaay Faay mi ñoo taxaw liggéey bi yëpp ci sama tur sëñ Moodu laa Jóob jërë jëf jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlal fii tey ci kër Serigne Omar Diop waa kër Serigne Modou laay Fall Ndar dar fi waaye waa kër am Amdi Khady Fall féete fi kon mbokk yi noonu la ñuy ànd ak yéen ci mboolem buntu kër Cheikh Ibra Fall yi nga xam ne dal nañ tey ci pinc mi danañ dugg fépp nemmeeku liggéey ba ak lan moo fa xam barke borom Tuubaa jërëjëf jëf mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek kon ñoo ngi fii waat ci beneen dal mooy dalop waa Jësbul Murit di waa daayira maam Cheikh Ibrahima Fall sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi njiitu Serigne Modou Fall toog ne waaye nag ñu toog ak Serigne maam Cheikh Fall moom Baye ndaam Fall xam naa dañ koy dëkk rek mu lal ñu fii nan la dal bi demee ak nan la waa daayira bi toogee fii incha allah bi bisimilah sëñ bi. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah waa académie ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax. tey tàmbulee nag ziar bu mag bi ak nuyoo bi ci xalif général Serigne Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool Mbàkke te ba li mu yéene liggéeyal maamu Serigne Touba lépp mu def ko te ànd ko jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di sëñ Amdi Fall Modou li mu liggéey li yéene liggéeyal Serigne Touba ci yoonu Cheikh Ibrahima Fall lépp mu def ko ànd koog mboolem njaboot gi ak mboolem taalibe yi fii ngeen ñëw nag ci waa Jazbul Mouride di daayira boo xam moo lëkkale sataatu maam Cheikh Ibrahima Fall yi ak waa kër maam Saliou Fall ak lu baree bari ci mbokki taalibe yi liggéey bi nag ba ko sëñ bi waxee ba tey ñi ngi woon ci programme bi mu ñi ngi woon réunion fi ak di dajeek ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi boole ak ñun lépp nu ñuy def rek ba bis bi sëñ bi am ko ni mu ko bëggee ba tax na tey biñ ñëwee fekk nañ kon tënk nañ lépp niñ ko war a doxale waa Jazboul Mouride nag ñoo nekk fii ñi ngi fii it waaye ñi ngi ci penc mi yëpp ñi ngi ci biir kër gi ndax dañoo def ay commission yu bari tasaaroo fu ci nekk ñu am fuñ fa teg nga xam ne kon wet gu nekk waa Jazbul Murid ña fa ngir saytu bis bi ba nam war a mel na ko sëñ bi bëggee moo amee ko noonu ci loolu la ñu nekk fii ñu nekk nag mooy baas bi fi la ñuy dajale xéewal yi di ko fi séddalee ngir tas ko ci pénc mi comme xéewal yi waañ yi sëñ bi da ko tas ñu nit ñu am luñ ci yor kon fii dañ fi dajale li ñuy naan ak li ñuy xéewloo ñu ko fi dajale di ko tasaaree ba mu fépp fépp foofu moo xam ne mbokk taaliba nga fa rek nga mën cee jot. bis bi nag nekk bis bi lu am solo Cheikh Mamadou Mountakha woote ko muy zikrullaahi te maam Cheikh Ibrahima Fall ku ko xam xam ne baatu zikrullaahi moom da ko da ca nekkoon saxo saxo saxo saxoo ko. ba tax na sëñ Moussa Ka mi ngi wax ne Cheikh Ibra bi mu ñëwee Kër Sëñ Touba lépp luy xitma mooy lépp lu ñuy liggéey liggéeyu kër da ko daan liggéeyee da soq da daan root buub. su ba noppi saxoo baatu zikrullaahi baatu zikrullaahi boobu nag yàlla defal ko ci lu kawee kawee kawee ba tax na yaakaar naa sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér yëg-yëg boobu la am ba bi mu yëkkatee bis bi tuddee ko sant yàlla mi ñu boole ko Cheikh Ahmadou Bamba waaye njukkale ko maam Cheikh Ibrahima fal ñu fas yéene ko def zikrullaahi 24 heures mu war a tàmbali tey ci 16 war a jeex bu soobee yàlla suba le 23 ci 16 sëñ bi ñaanal mbokki taalibe yi ñëpp dellu ci yitte ñu ñaanal sëñ mu yàgg fi lool te li mu ko bëggee rek mu amee ko noonu waaye ñu soñu mbokki taalibe yi ñëw yëpp nag ku fi ñëw nga ànd ak yar ak teggin akuk dal ak teewlu loolu la sëñ bi bëgg fu waay mën a nekk na nekk na ànd akuk dal ak teewlu ba li nga xam ne mooy sikar fu waay mën a nekk nga nekk fa di ko def ku mënta ku ko mënta def ci it nga def ko ci yàlla yor sa yor sa kurus sax toog di tudd yàlla lépp ci sikar si la bokk li li bi bëgg daal mooy 24 heures yi moom nañuy tudd yàlla di ko fàttaliku ndax sunu borom kat moo digle ne nañ koy fàttaliku lu bëree bëri moo wax ci alquran ne yaa ayyuha alladina amanu skuru la zikran kasiran wa sabbihuhu bukratan wa asilan yéen ñi gëm na ngeen di tudd yàlla lu bëree bëri te koy fàttaliku di ko sabbal suba ak ngoon kon nag Cheikh Mouhamadou Mountakha bu ñu woowee ci zikru laay boobu dañoo gën a tënk rek ci ndigalul sunu borom fas yéene ñu defe ko kon ñi ngi ñaan ñëpp ñu fi teew li yàlla dëxëñ ci baatu zikrulaay bi te sëñ bi yéene ko ci yàlla na ko ñëpp am nañ ko bëgge ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul barke maam Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf. jërëjëf suñ maam Cheikh kon lii lañ leen jëraloon fii nga xam ne mooy daloo waa Jazbul Mouride di sotaati maam Cheikh Ibrahima Fall yi kon noonu lañ koy toppee mboolem ci buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi asalaamaaleykum wa rahmatullah